Nous dem ñu ko ndax du wax lenn dem ji pour temps bi tous les leaders yi ñu àndal ba tey ji gis nañu lu leer nañ ni Macky Sall effectivement dafa élection yi. daf ko ndax rek xool fichier bi ci lu gàttal rek dañoo gis ni nous nga xam ci suffrage exprimé entre législative ak présidentielle millions la ak lu mais curieusement neuf cent mille maanaam fukki nit yu yokk rek juróom-ñeent yi Macky Sall la ñu wote fukk yu yokk rek juróom ñeenti yi Macky Sall la ñu wote xam nga loolu doy waar la lu ñu càmbaree aussi ci communes yi jël nañu ci lu ma téeméeri commune ak ñeent ci fanweeri département ak juróom ba ñu xoolee loolu aussi gis nañu ni foo ca dem rek boo jëlee ñi am fukki at ak juróom-ñett ak lu topp war a wote ñu xool ñu nekk ca fichier ba war faa voté da koy ëpp lool lool lool it muy càcc gu doy waar waxuma nag li nga xam ne liggéeyoon nañ ko ba suñu frère Barthélemy waxoon ci muy li am ci état civil bi nga xam ne lu doy waar la lu doy waar la ay As Babacar Gueye ak Abdou Salam ñoo niroo même numéro carte d'identité waaye différence bi rek mooy sama bos day am numéro 2 ci biti ci cat ba ma nekk 14 nga nekk 13 loolu gis nañ ci ay téeméeri téeméeri téeméeri junni nit ak nit ñi nga xam ne Sénégal ñu juddoo nit ñi xam ne fa ñu juddoo ba ñuy juddu boobu dëkk ba amul yooyu yëpp nag. il faudrait que ñu top ko ba ñooñu ñu génne leen ci fichier bi moy audit bobu ñuy wax mais waxuma la loolu mais ñi def loolu dañ leen wara top ndax it loolu ak càcc gu doy waar la. waaw fan wéri yoon ak juróom ñent yi nga xam dañ ko xol bi ci jëk nak nga xam ni wax dëgg yàlla mooy li ñëpp di xaar mooy ki nga xam ni lu yàqu moom la mooy taxaw naan ku ànd ak man ànd ak Macky Sall dinaa fexe mu wote. nit kooka nga xam ne lu fi yàqu moo ko def ne moo doon directeur de campagne yu Macky Sall muy Aly Ngouille Ndiaye ndax fii ay élection technique la woon kooku moom du mën a organiser te ay élection yi nga xam ne wax dëgg yàlla nit ñi dañ ciy dugg loolu mënul nekk am na yeneen nag yi nga xam ne dañ ko topp aussi mais en tout cas daal lii moom bu naree am te dara soppeeku ci jarul kenn di dem election te ñun ñiy wax loolu nekk ay technicien électro xam nañ ci dara ndax dawal dawal daanu ak jaay perte moom yomb na jarul jarul jàng donc vraiment duñ ci duñ waaw Sénat moom dafa laxiste xam nga Sénat moom boo xoolee code électoral bi rek bu toppoon li mu war a def moom jox nañ ko jumtuwaay pour mu liggéey waaye dafa doy waar commencé wul tey nag ndax élection législative bi mu pare génn nañu benn rapport ñoom bi nga xam ne presque 200 pages la ñu ngi ko génnee 3 mois après les élections boo demee ca page 25 24 ña nga naan carte d'identité yi nga xam ne moo jaxasoo bañ koy doog génne di ko yóbbu ñun dañ ci ñoom Sénat dañ leen ci daan boole waaye dañoo toog ba ci yàgg ñoo ko bind de dañoo toog ba ci yàgg ñu génn leen ci loola daal dina jël carte yi di ko def ci ay carton di ko envoyé en vrac ci Sénégal looloo tax mu jaxasu médecin après la mort ki nga xam ne dañ laa dénk pour nga am pour war wax arrête nga bàyyi ba yëf ya passé nga koy wax ci loolu rek la nekk. ci élection yi aussi am na deux message yi nga xam ni génne nañ ko yu illégaux xaar ba ca bis ba ñu génn ab message bi nga xam ni dafay changer carte électorale bi changer aussi. Euh, fichier électoral bi te ba mu ko changé ñoom ñu yëg ko te waxuñu ci dara ba tey jii waxuñu ci dara donc lu day wax la Sénat tamit wax dëgg yàlla dafay jóge na fiy jógee du yooyu rek dina gën a bëri dañ ko gën a càmbar mais recommandation yi bëri na bu dee Macky Sall jàmm la bëgg jàmm la bëgg jàmm la bëgg wax dëgg yàlla yooyu moom duñ ko bàyyi waxuñu ay dialogue am ak yooyu de waxuñu yooyu mais lii daal nga xam ne moom lañ ci nekk ñu koy toppatoo pour téye ko suñu loxo pour am yat wuñ ko dóore mu jóge fi loolu moom duñ ko seetaan foog ñu wax ci par une CNI wala beneen structure beaucoup plus indépendante CNRA bi aussi ñu xool ko ndax am nañu ay càmbar ñu wax loolu mais li ci ëpp solo mooy DAF bi ak DG bi nga xam ne ñoom ñaar ñooñu ñooy arme yi nga xam ne moom la Aly Ngouille Ndiaye di utiliser pour fraude ñooñu moom doon jàkkaarloog ñoom ndax kenn ki dem na retraite bu yàgg ñu téye ko fi te bu ngi woon sax ci affaire yu njuuj njaay yi nga xam ne xam nañ ko ba yoon toppoon ko te mujjul fenn mu ngi ci biir rapport bi nga ko ci gis donc ñooñu moom dañ fiy jógee